salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سير وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر السفر nuyu naa leen am internetu Dakar Buzz alors comme ni ngeen ko gisee nag ñu ngi a hauteur de Thiès dëgg ma loonu yoon ngir dem euh, fa nga xamante ne ni rek mooy dëkk bu sell ba di Touba ci yoon bi nag ñu fekk fi benn accident bu nga xamante ne ni euh, ba mu amee démb ci guddi la waaye fekk nañ fi chauffeur bi ak ki nga xamante ne mooy apprenti bi dañu leen di jël rek ñu wax ñu naka la dikki ak ñoom fan la ñu bawoo maa ngi lay nuyu sëñ bi. ça bi naka la ak sant bi. man Umar laa tudd. Umar euh, nga nekk apprenti oto bi seen accident bi nan la dikkee. accident bi moom wax dëgg yàlla man moom damaa doon nalaw si kaw porte bagage bi ba oto bi daanu oto bi bu mu daanoo sax laa ko yëg oto bi bu oto bi depuis muy daw yëguma ko. yéen oto bi fan la jugee woon. oto bi Dakar la jugee. Dakar ñaata ñaata nit la yeboon. oto bi yeboon na 72 nangam. waaw ñooñu ana ñu. ñooñu koy dem nañ am na ñu dem hôpital am na ñu dem am na ñu dem Magal. ñaata blessé la amoon. ah blessé moom bëri nañ tuuti moom dëgg yàlla yaakaar ni moo andi accident kon kay bi kay moom benn oto moo benn oto lañ naroon dugg rek oto sa waay cippeel oto bi waaw bu mu ko cippeel waaw chauffeur bi bu mu ko cippeeloon nag oto bi daanu fii presque dafa foog ne fii xóot kon dafa xam ne ne fii dafa xóot mu cippeel oto bi oto bi daanu. da waaw dafa doon moytu benn camion. waaw léegi camion boobu nag moom dafa daw ba daw ba daw ba ñëw fii fii la daanu camion bi yàgg nañ di ko daw yàlla suñu borom bu dogalee rek loolu rek mooy ñu gis ne mbir mi yàq na seen liggéey bi yëpp boobaak léegi yéen a ngi toog fii demu leen dikku leen lan moo tax. waaw ah fii moom dëgg yàlla ñun moom heure bi nii sonn nañ lool eh, nit moom heure bi xamuñu saa fan lañ jëm heure bii laay billaay wallaay tallaay heure bi moom suñ liggéey bi yëpp a yàkku eh. est yi ñëw nañ. waaw secours yi ñëw nañ waaw. gendarme policier mm, militaire ak zappor. ñëwee ba saytu bërëb bi lan lañu leen wax. ñu koy waxuñu dara man man de ma waxuma dara wax dëgg yàlla waaw man de moom ba léegi waxuma waxuñu ma dara. léegi yéen da ngeen di continuer dem Touba wala kay màggali benn yoon. ban oto ngeen di jël parce que bu ñu xoolee seen oto bi fi mu ne nii nit mënatu cee dugg. waaw beneen oto rek la ñuy jël kay beneen oto rek la ñuy àndal fii dem ñu demee nekk suñu kër ba yàlla suñu borom heure bu mu ko dogalee rek ñu génn.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 سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر